des Mourides ak le ministre de l'environnement ngeen jëmbat garab arrosé ko am nga message boo xamante ni bëgg nga ko délivrer ci askan wi donc monsieur le président ñu bàyyi la nga joxe kàddu gi merci. waaw salaamaaleykum wa di njëkkee kàddu gi kàddu gi sant sant yàlla bu baax a baax moom mi nga xamante ne. moo ñu may ba ñu fekkee bés bi te tal ko ba di ci def activité boo xamante ne waajaloon nañ ko ci coobareem di no doore di nuyu nuyu ñëpp ñi nga xamante ne euh, teew nañu ci bés bi te di jiital ci nuyu gi xalif général des mourides sëñ taxa Basiru Mbàkke di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal bépp kilifa diine ci réew mi di ko ñaanal bépp kilifa aada ci réew mi di ko ñaanal waa réew mi yépp di sant bu baax le autorité yi nga xamante ne fekk naa leen fi muy autorité administrative yi di maire di yeneen autorité yi nga xamante ne teew nañu ci bés bi di ndokel di jaajëfal bu baax ministère de l'environnement ak ñepp ñi nga xamantene agent ministère bi lañu di jaajëfal bu baax ñi nga xamantene taxaw nañ am nañ taxaway gu mucc ayib ci bëss bi di béral loxo nak ñi di wa Touba ci kanam nga xamne euh bok nañ ci li gëna tax journée bi ñu doore ko fi gannaaw cër gi nga xamante ne jox nañ leen ko ci seen taxawaay ci liy jëmal dëkk bi ci kanam waaye dañoo def jàlloore ci jëmbat garab bi ma doon waxtaan ak ministre bi lan moo tax ngeen tànn Touba pour ñu doore fa reboisement bi euh, dafa ma wax ne dañoo gis fan yi ci ndigalu xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wër waa Touba ci kanam dañoo def pépinière bu mag a mag a mag a mag wax na ma ne sax pépinière bi egg na ci ñaar fukki junni ak juróom ñetti junni ci garab muy vingt-huit mille garab yoo xamante ne mu ngi fii ci Touba ci pépinière te ñu war ko jëmbat ñu di leen ci jaajëfal bu baax di leen wax ne lépp loo xam ne gouvernement bi mën na leen ci gunge jaare ko ci ministère de l'environnement wala yeneen ministères yi taxawaay boobu dina mat sëkk parce que li ñuy ñaax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci communes yi rawatina communes yi nga xamante ne dafay am mbooloo gu bare bare bare kuréel yi fa nekk lëkkaloog maire yi pour ñu taxawal ay pépinières yu mel ni pépinière Touba ci kanam muy pépinière boo xamante ne du dañ ko jëmale ci li saxal ay garab ci euh, dëkkuwaay yi sànq le porte-parole Khalif bi ñu seigne Bass Abdou hadir makoy koy bu baax ci teewaayam ak ci cadeau yu rafet yu mu yëkëti mu ngi wax ne ci ndigal yi seigne Touba joxe won ci jëmbat garab di ci ñaax talibé def ko lal ci garab bu amul dundu ju mëna am ci kaw suuf mu méngoog slogan bi nga xamantene ne bakke bi nga xamantene mom le ministère de l'environnement jël at gi muy garab moo tax ñun suñu teewaay gi ci àdduna mën di wéy mooy l'arbre notre assurance vie kon fépp fi nga xamante ni ci Sénégal woo nañu ñëpp pour ñëw ci bés bi taxawoo ko nu mu waree pour jëmbat ci nu mu gën a baree ay garab ci gox goxaan yi ci dëkkuwaay yi dañ koy def ci logique co-construction bu ñu nekk ak Sénégalais yi bi ñu toogee ba tey maanaam liy Sénégal na Sénégalais bu ne jàpp ne mu ngi ci loxoom. ni mu nekkee ci loxo président de la république nu mu nekkee ci loxo ministère de l'environnement, environnement nu mu nekkee ci loxo bépp agent euh, ministère de l'environnement. environnement kon ci misaal nit taxaw ni saxal ay garab ak toppatoo leen ba ñu màgg nu mu nekkee wareef ci agent Eaux forêt noonu la nekkee wareef ci bépp citoyen Sénégal bi nga xamante ne bëgg nga di dox di gis ay garab bëgg nga booy dox ba fe ba son nga am foo feexloo ci ronu garab bul xaar ne garab boobu keneen moo ko war a jëmbat ba mu sotti nga ñëw toog ci suuf si waaye yow tamit da nga am cëru ak devoiru saxal ay garab di leen toppatoo vingt mille maanaam ñaar fukki junni ak juróom-ñett ci garab yoo xamante ne ci ren gii kese waa Touba ci kanam saxal nañu ko balaa muy am sens ñépp ñi nga xamante ne ñoo dëkk Touba taxawoo ci li koy lii ah lii tax ñu arrosé ko ba bi génnee ba garab yi mën a dund waaye ministère de l' environnement boo xoolee ci lu mu recensé yëpp ci ay garab ren gii ëpp na 5 millions juróomi million ci ay garab yoo xamante ne ci journée gi ren gii nii rek war nañ ko jëmbat ci gox goxaan yi Sénégal yëpp ngalawaay na ñu fexe ba ci 5 millions yooyu li ci gën a bare mën a dund ba taxaw ndax bu ko defee at bu ne. bu yàggee Sénégal naataange dina fi dina fi dellu ci waat jaare la ko ci garab foo tourné gis ay garab te mu doon loo xamante ne day gën a ñongal dund gi ci biir Sénégal kon sant nañ ñëpp ñi nga xamante ne ñu gis leen ñu bañ leen gis ñu dégg leen ñu bañ leen dégg wala ñoom ñu gis ñu wala ñu bañ ñoo gis ci journée bi ci suñu taxawaay ñu ngi dem di jëmbat ay garab ci moment bii ñu toll nii di ko defee Touba ñu xam ne lii rek symbolique la ci dayob dëkk bi waaye symbolique la tamit ci taxawaayu waa dëkk bi ci yàgg saxal ay garab te gën cee taxaw ñu gën di leen ñaax di leen ndokkeel di leen jaajëfal di leen jox tamit mu doon royuwaay ci ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ciy góorgóorlu ak ñeneen ñoo xamante ne war nañ cee gën a góorgóorlu ndax bu ko defee ñun ñëpp buñ ko bokkee ci Sénégal am taxawaay boobu bu yàggee lépp luy avancé désert ak désertification ak ci fépp fu mu mën di nekk ci senegal dinañ ci ànd saafara ci nu mu gën a gaawee lii moo nekkoon lu ñu koy doore di doore di mujjee ci gën a ñaax

Je voudrais d'abord euh, rendre grâce à Dieu de nous avoir donné l'occasion d'être témoin de ce jour et de nous avoir permis de le tenir comme nous l'avions prévu depuis des mois. La journée du 4 août est une journée nationale consacrée à l'arbre au Sénégal. Cette année, le ministère de l'Environnement a décidé, parce que c'est rotatif, a décidé de tenir le lancement de cette journée à Je voudrais d'abord saluer le Khalif général des Mourides et saluer l'ensemble des disciples des autorités religieuses et coutumières ici et partout dans le pays et rendre hommage à tous les citoyens sénégalais qui ont fait de ce jour ce qu'il est en train de devenir, à savoir une journée de réussite dans le reboisement. La journée d'aujourd'hui, il faut le comprendre, c'est juste une journée de lancement. Mais planter des arbres et s'en occuper doit être un comportement quotidien toute l'année. Une chose aussi est de planter des arbres, une autre est de s'en occuper afin qu'on puisse assurer la survie des arbres que nous sommes en train de planter ou tout au moins d'assurer un taux de survie extrêmement important par rapport au nombre d'arbres qui ont été plantés. C'est l'occasion pour moi de rendre grâce et de plutôt encourager et remercier Touba Chikanam qui a fait cette année une pépinière de 28 000 pieds et de le donner en exemple à toutes les communes du Sénégal, à toutes les associations au sein de ces communes, qu'ils comprennent que reverdir le Sénégal doit être entre les mains de chacun. Il est de la responsabilité de tout citoyen de contribuer, comme nous sommes en train de faire dans une logique de co-construction, à ce qui va reverdir le Sénégal. Il s'agit de planter des arbres toute l'année, mais il s'agit surtout de s'occuper des arbres qui sont plantés pour que le taux de survie maximal puisse être assuré. Cette année, ça se passe ici. D'autres années, ça va se passer ailleurs. Mais c'est juste une journée de lancement que les citoyens doivent perpétuer chaque jour dans l'année tant dans le reboisement que dans euh, l'entretien des arbres qui ont été plantés. Et me réjouir de ce que la journée connaît un engouement certain partout au Sénégal. Féliciter le ministre euh, de l'Environnement et de la Transition écologique et l'ensemble des agents du ministère pour leur dévouement à cette journée et l'ensemble des citoyens au Sénégal, partout où ils soient, qui sont en train de célébrer cette journée et l'en faire une journée qui sera davantage ancrée au-delà du calendrier républicain, mais dans les habitudes et dans la nette compréhension qu'il nous faut des arbres pour notre assurance vie, comme l'a rappelé le, euh, porte-parole du Khalif, euh, Abdouhad mais aussi comme l'a retenu le ministère de l'Environnement comme slogan cette année, à savoir l'arbre, notre assurance vie. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour l'engagement de tout le monde partout au Sénégal pour faire de cette, de, cette journée une journée de franc succès. Merci beaucoup.